Votre série Sketch heures avec nos partenaires et MGK, Yoni NVBDP, NVBTP, nouvelle Vision du bâtiment et travaux publics, Djum Samba Couture. Du nouveau à Yonimagao Yoni pour vos services livraison. Supermarché, restaurant, pharmacie, glacier, courrier, etc. Appelez au 78 544 93 93 ou au 78 524 82 82. Du nouveau à Thiès, ou Flaner pour vos services livraison. supermarché, restaurant, pharmacie, glacier, courrier, etc. Appelez au 78 544 93 93 ou au 78 524 82 82. bergerie MGK ñu gën ko xam mbokk yi ci ay xar yu wóor yu tegu ci yoon ndaxte da ciy baa nga ne góoru bànn nekk surtout ñi nekk xar bu doy waar nekk fii ci bergerie MGK dafa def liggéey bu exceptionnel ndaayam nag nekk doomu kabila ndax kabila dafa tëb doomu imaam imaam nga xamante ne doomu kaysër la ak dadaa la wante jee asum yi nga xamante ne nekk doomu all black macha allah ku xam all xam nga day si beerum dafa traverser doomu Cheikh Fall te boo Cheikh Fall sa xel faw mu dem ci ando sa jaar ak maa jaar ak njogu jàll pal ak Pastef nekk doomu cheikh set yaayam di maam ma macha allah boo ne CR7 di nga bu baax ba ci roi bashir doyna seuk ñu ne MGK mo yore yaayu karamako liggéey bu mucc ayib non la koy defee di améliorer di yéssal di tak tak bu wor ci ay critères kon MGK non la doxee. Угу. amul solo amul solo pour yéen la baax na maa ngi jéggalu de xam nga léeg-léeg ku nekk rek ak soxlaam voilà beneen bi ci topp mooy mhm. damay mag dugg beeg génn bi du ma ko mën comme li ma la wax rek def fulla ak fayda moo yëfu mag te loolu laa bëgg a def jël la jaamu ci yow yàlla macha allah def la soxna taxaw la nag li nga bëgg yëpp ma def ko lii daal. mënona baña sax waxtaan ak yow waaye comme aussi nit ki boo xamee soxlaam rek day gaaw pour nga euh, euh, pour nga dimbali ko mi ngi noonu <laughs> mi ngi noonu. góor gi nga baal ma nag rus naa la trop ndax dama ñëw fekk la sa bërëbu liggéeyukaay nga defal ma teraanga. am benn taxawaay boo xamante ne nii wane nga ma ko mu touché ma trop nag waaye la ma fa indi woon muy problème mu jëkkër bi bu ma koy wax nekkutoon ne yaw yaa tax ndax nag dëgg neexul mag nga gone laa te tey boo doon bay taawloo ma. ah oui ma oui ma soxna si je t'arrête tout suite. lu dëgg kon daal bu ma koy def sama moroom a tax may wax. mais pas bi. Euh, xam nga xam nga yéen lan mooy seen problème baax ngeen torop mais seen communication baaxul ay bëy ay njamala non non non mais yooyu yooyu du ay wax surtout ci magum jëm boo xam ne nii euh, am na taxawaay bu mu taxaw c'est vrai amoo leen problème nag mais communication rek ngeen amul beneen bi ci topp man mii mënuma pàdd mënuma wéex mënuma dóori ay boulon mm-hmm. amatuma doole ji mm-hmm. sa yaram wi bu ma ko raayul defaluma la ci li nga bëgg di la toppatoo ak loo bëgg moo faj leneen lay def ci yow mm-hmm. beneen bi gone yi nga naan ñoo maaseeg yow bindal jëbu toj ñaamuñu coffre bakken bu xotteeku ñuy nàcc sikkim bu fett lii rek lañ leen mënal ay gone lañu dañ leen dóor te dañ leen di gaañ rawatina footballkat yii danoo am doole te duñ leen yërëm damm seeni bañ tuur seeni bët mais c'est vrai li ci mag du ci gone comprendre naa la tuuti nag ndax euh, ku melni ni man jogi bitim rew ak sama façon xamna di nga xawa am am sa touti waye le nga xamanteni ni joxeeloon na muy juróom fukki jooni mm. <laughs> lu ko pire ngi fi te du pour ken <laughs> pour yow xamna len du pour ma sàmba du pour ma dem pour yow la deug la wala <laughs> gisuma la won bu baax ah, di wax il fallait me regarder quand même. dafa xaw a tàng nag. c'est chaud quand même oui. xam nga clim bi dafa yàqu. ah yow clim ngay taal. moom lay taal moo mu taal. wax nga dëgg ak euh, Paris gi ma jógee xam nga wuy ma. Ponkal man de am yitte bu ma amal solo moo ma ñëw fi say jaloore dégg yi ngay defal doomu aadama yi ma am yaakaar si yow pour nga dimbali ma. examen yi dañoo ñëw ba pare te xam nga ni ñun étudiants yi ci yooyu lañu yaakaar moo taxoon ma ñëw pour nga dimbali ma li ngay defal doomu aadama yi nga jàppale ma ci ngir sama examen yi ndax ñëw nañ ba pare. alhamdulilahi rabbil alamin xam nga yéen yéen a yore réew mi ëllëg. dëgg la. su ngeen bëggee seen jàng nag dañ leen siy jàppale te yàlla rek tax. alhamdulilahi rabbil alamin. alhamdulilahi rabbil alamin. examen bi kañ la. fii ak deux semaines rek la incha allah. deux semaines. nga nooy def dangay dem dugg ci bitig bi indil ma ñaari big bleu ak peeru carte xam nga carte yu ñuy mariage yi. moom nga may indil soo yoree trent mille nga jox ma ko ma liggéey ci li ma ci liggéey. trente mille fonkul maam trente mille bari na de te ñun suñu bourse trente mille kese la yàlla xam na ne su ma la ko joxee weer wii du ma lekk. trente mille francs kese la. billaay jàpp si rek. xam nga léegi réew mi dafa tas ndax tiktok yi sëriñ bu jóg ni sëriñ la di arnake di ubbi ay chaîne YouTube te man yooyu nekkuma ci. yalla ya ma yabal pour ma jappalé ya jami ba taxna na li nga wax lal na sama sensibilité kum que amoo trente mille waaye ya, loxoy de dañuy wessalo su la defalé na ngay defal yor nga 10000 francs alhamdulilah yalla baxna na baax kon demal nga nga nga jënd li mala wax ñew ma defaral la tamit amon na benen yitte bo xamni moma eppal ma solo sax bi ma wax ni waaw sama far bi daal moom laa bëgg nga defal ma lu nga xamante ni si du xool keneen man rek lay xool lu ma ko wax mu ni waaw loolu moom loo ma ci laaj ma jox la ko ak nu mu mënti toll loolu moom yitteel na ma lool ponkalu ma su ma la laajoon cinquante mille wala cent mille nga jox ma loo ma ci laaj ma jox la ko yow kon xam nga imbécile nga si mënoo ma laa laaj trente mille si sa jàng avenir u dëkk bi ma ne yow yaa ko yor nga ne ma aw ma trente mille ma laaj la nga may wax waxi far ñoo xamante ni dañuy fen bàyyi leen góor ni amuñu ñun la yoree xoolal sama discours bu éloquent bi ma def nii la yéen a yore équipe yére yore réew mi ëllëg nga ñëw naan ma loo ma laaj ma jox la ko xool eh wuy ma eh bàyyi leen seen fi caaxaan yi dugal noq dem bitig ba indi ñaari big ak carte ak dix mille ma defal la nga am sa exemple bi jugal dem. waaw ah, baax eh! Eh! sa jekkaay bi sa neexaay bi soo ni mu woon sax dama bëgg faru sëriñ wala faru paa ma jël la nga naan ay faru étudiant. imbécile. toppatoo rek la laaj. Naboko Chinyi Kukoso Lapa. Jamais, les petits soutourés. Ah, nah. <laughs> kamu nggak tahu emang. Ah, fof nggak jawab apa apa. Baik, eh, open apa Fof, open. Eh, baik, damai ya, nangit. Eh, eh, eh, eh, bahas sama lo kau. Hah? Yang kita mau sembar. Ya, dengan eh, eh, bahas sama lo. Dengan lan ya. Yang kita mau sembar. Dengan lan. Baik, fikir jawab. Lan nggak defi. Eh, eh, bahas sama lo kau. Bo, bonil kecil tuh sama barang deh. Lan nggak defi yo. Baik, baik, baik, lo kau campur. Ah, kon yo lingga kon degil kon yow dang may dang ay genn ngay encaissé mais je veux savoir c'est c'est qui ce monsieur là xamé nga ma nga am na fu ñu daje nga mais ça va pas eh yow kii lan la la mënal li ma mënalul bonne réponse Wah ya xamadi waaye man mana lalu la poos mënal la beneen bi kii xanaa poos rek la lay mënal non ça va pas mana poos rek la lay mënal lan la la

déjà appel yaa ngi dugg gis nga kii maa ngi koy récupérer sa bakkan laa la laaj pour nga jot téléphone bi wan ma sa doole. mais kii di dajale ay baaraam ak kii di nampatal eh mais indi téléphone bi tamit. eh da nga gaaw dama soxla sa nampatal bi retrouve-moi en bas. oh, oh. mais kii kan eh, loolu am na problème. non loolu am kaa la. non waxatuma sax baaraam bi mais lii mu yor sama lépp ci la ne. garaawul samay carte bancaire sama lépp non du problème du xaalis baa ngi ci poche bi rek lii amul ben problème lépp dang koy wutaat rek non lépp ngi li ma yor lépp mi ngi ci téléphone bi quand même luy loolu ana xaalis xana xanaa wul sa poche mais kan moo defati xaalis ci poche j'ai tout dedans là waa da wool bi wol ki kii ngeen xaalis baa ngi téléphone mi kon lan ngay xaar jugul pour def la dem jëli ci téléphone bi non je comprends pas eh. jógal dem jeli ci téléphone bi wa yow ki salon la. ki sama ex la faté ko ex yu faté yoy la wa taxaw lo yagal dem jeli ci téléphone bi. non mais nan la ko jeli ci ko ma xamul ngeen mais yeen wala li da ngeen ko programmer programmer amna bobu jot. non mais je viens de comprendre. jógal dem jeli ci téléphone bi man téléphone ba ma intéressé jógal ah du sa moromu góor rek. non kii du sa du ma non bu xati kii sa morom la. naa waxoo woon ne xale yi dara lii yëpp amul problème boo ñëwee ñu faj ko demal jëli ci téléphone bi ah. xam nga xam nga fan la erreur bi ne maanaam moom du ay morom. ba ci mënu di xanaa waxoo woon ne xale eh, yi mënuluñ la dara. waaw ay dooley mag ak dooley ndaw moo bokkul. nga lijjanti ko noo mënti def ba téléphone bi yéegaat na yéeg.

saagari nii lu mu la def fayu mais na téléphone bi ñëw oh. waa ma ne saw waa saw yow dimbali ma rek te yàlla tax saw saw ah Ablaye dimbali ma te yàlla tax jox ma téléphone bii rek dimbali ma rekk te yàlla tax te li nga ci xamul kat yow da nga maa dimbali te yàlla rek tax maanaam man mësuma naane ndox ni li nga yoroon yépp gone gi moo la ko rat lépp mësuma ci wóor na yàlla yow ku lox loolu waaw kay gis nga bi ma nee ko jàkk gis nga bi ma nee ko jàkk tëdd ci kawam noonu noonu ma soonu noonu rek mu ne ci sa digg bopp bi fii sama nambatal bi la jàpp ma la sëdd fii ba pare li ci garaaw mooy day mel ni da koy xoos moo tax bi nga ñëwee naa ma sa nampatal laay cuqati laa xam ni kii yee la toroxal léegi nag damaa dimbali yow dimbali nga ma sa sama bi juróom fukki junni ak yi ma yoroon dara demu ci Ablaye kii ku dul yow sax mën na koo faa gagal na la yàlla dimbali nii nga ma sowee tey léegi jox ma téléphone bi rek nga bàyyi mag ak li ci des man dimbali nga ma te yàlla tax. maa xam nga ni li nekk ci téléphone bi yëpp carte mémoire beeg lépp lépp kii sotti naa ko fii ak mémoire téléphone bi yëpp versé naa ko sama téléphone. ay déet waay déet loolu loolu doo ko def xam nga image dafa sacré. comme yow ñàkk nga faare ba ñu am fu ñu jaar ak yow naa la wax leen gis nga sol sa lomotif yi ne fii ci téléphone bi yow paa bu toll ni yow ah, ngay sol ay caleçon yu yu gàtt xotteeku ba pare ñu lay lëmbaloo di la war mbij loo nga koy def. effacé ma foofu. ak yeneen ak yeneen. foofa nga may effacé rek foofu sax sedd na. am na bu gën a garaaw bu ma gis quatre lomotif la quatre. yooyu yëpp nag doo ko yëg ndax bu téye sa fii rek doo xam dootoo xamante dañuy nodd wala dañoo dañoo ne ca église. yow bandi woo sax ah, li lay sànq mi ngi fii. xam nga image dafa sacré rek xam nga image dafa sacré waaye loo xam nga nag saw yaa ngi tooñar bi nag image jaamu doo ko yóbbu ci noonu i xam nga ni société ni mu rëy nga dem ba di coqati nampata te la nga yor yëpp gën a yóbbu na ko. kii damay damay ragal sax te xar ba ma am sens ndax am na ku ne ma ay somnifères la ñuy def ci seeni ween boo ko nampee da ngay nelaw man yàllaa ma dimbali man yàllaa ma dimbali rek heureusement ma tëdd féete ne le kuñ ci nampal nga pare ku yebbu ba c'est fini de saw dooma dooma rek nga effacé yooyu yal na la ndaw si nampal yal na nga jot ci somnifères yi